jërëjëf Fall Family TV FPGW 15 heures 8 minutes dimanche 22 mai 2022 ñu wax ci xabaar bile ca Touba Mbacké foofu ca armée li baqee nag ginnaaw benn waay bu njort ne daal moom borom ñaari turi la moom lañ bëggoon a yóbbu foofu ngir denc ko ca Baqiya waaye lu nu mel mujjut antu ginnaaw kuréel gi nga xam ne ñooy saytu jumaa yi Touba ji ak lii di armée li baqee yi muy daayira muqaddimatul xidma ginnaaw bi nga xam ne niki démb daal nee nañ jot nanu xabaar ñu xabal leen ne kenn ku ñuy jiin mbirum borom ñaari tur yi turam nag ASC la njot ne Assane Gueye la war a tudd dëkk foofu ca mbuur mbuur coose la dëkk ginnaaw bi nga xam ne nag daal dinañ leen jox xabaar boobee tey jile ci suba gi boori juróom-ñeenti waxtu daal da niwam daal di yegg ci ca Touba fi nga xam ne mooy fu soriw dara jumaa ja fi nga xam ne mooy margo bu mag ba binnaa bi ñu fa yegg see nag waa daayira Muqaddimatul Xidma leen daal di gis mbir ya ñu am xabaar bi nga xam ne nii moom lañ woon ne mooy kooke ñuy tuumaal borom ñaari tuuri daal yegg si na fa si leen daal di wax ak mbokk ñu indi woon kooka na leen kile daal dafa am nañ dégg si moom te loole du tax ñu mën koo denc foofa ci waral nag ñu daal di ko wax ay mbokkam ñu daal di leen génnewaat ba xam ne génn nañ luy territoire bu Touba ngir delluwaat feneen ñoom daayira Muqaddimatul Xidma daal di def lu nu mel muy daayira boo xam ne nag ay bànqaasam lëkkaloo na ci biir réew mi ndax fu nekk am nañ fa ay nit ñu leen di joxe xabaar ngir rek ñi gën a mën a sàmmoo kaaraange ak ñoŋal dëkk bu sell ba di Touba kon tey jii de homosexuel ki li nga xam ne borom ñaari tur lañu lañ ne moom la ñu bëggoon a yóbbu ab néewam foofa ca Touba denc ko fa looleen nu mel mujjut sotti waaja nag mu nga jóge woon ca Mbuur coose